bientôt sur Assalaamy TV. salaamaaleykum mbokk yi xarit yi yéen ñi safoo di seetaan seen télévision bu mag bii muy euh, Assalaamy TV Assalaamy TV nag mu indil leen benn émission bu bees tàq bi nga xamante si ni nee naa la kenn dootu ko présenté fii ci senegal rawatina adduna euh, bi yëpp muy seen émission li ñuy tudd li ñuy dund nag ñu war ko amal fii ci euh, Assalaamy TV. nga xamante se ni neenaa la mooy télé bi nga xamante se ni képp koo xamante se ni bëgg nga gingeeku rek nee naa la toppal li nga xamante si mooy Assalaamy TV ak émission bu mag bi nga xamante ne moom lañ leen di waaj a mu muy émission euh, li ñuy dund ku ne xam ne la ñuy dund si euh, àdduna bi rawatina suñu réew mi di Sénégal rawatina tamit fii dëkk bu sell bi di si Touba waaye nag na ngeen xam ne euh, bientôt si seen émission bu mag boobu noonu muy ah nu ñuy dund fii si euh, Assalaamy TV avec ki nga xamante si ni moom mooy sëñ Massamba euh, war a présenter émission bi waaye nag ànd seeg jigéenam xaritam ki nga xamante si ni macha allah bu ko gisee rek euh, xelam day dal muy soxna Tambédou nga xamante ne macha allah mën a décortiquer ci wàllu lu domaine bu ñu mën a dugg ci lépp lu mën mënti doon nga xam ne moom da si mën di décortiquer lu am solo nee naa la fii lay xewee fii ci Assalaamy TV kon boog gars yi bientôt bu ko kenn fii lay xewee jàpp leen ko di ngeen ko am ci télé bi di ngeen ko am ci rajo bi kon boobu gaa yi sëñ Touba amul morom. Eh, jërëjëf sëñ ma Massamba ñu ngi am contentement ak mbégte ci ànd ak yow li nga xamante ni moo di émission li ñuy dund bi nga xamante ni moom nga présenté léegi incha allah fas yéene koo dawal ci fan yu néew muy xewee fii ci Assalaamy TV ñi leen di jox nag di daje bu ko kenn tardé bu ko kenn raté ndax ku ne xam na ni li ñuy dund moom lu nekk ngi si biir dox daje la macha allah ku ne xam na ni jafe-jafe yi bëri na problème yi bëri na ci solution yi nag fii la Assalaamy TV ñu koy ànd ak sëriñ Massamba mu ci ànd ak soxna Tambédou xaritam macha allah ñi leen di jox rendez-vous nag mbokk immigré yi féetuwoo fële ci Caserta Napoli Salerno Benevento saa su nekk nag yéen a ngi ñuy topp ak suñu mbokk internautes yi ñu ngi leen di wax ni à bientôt incha allah ak émission bu bees tàq boo xamante ni fii lay xewee ci Assalaamy TV ak Serigne Massamba ak seen xarit seen soppee soppe Soxna Tambédou